man mii di Fallou buso di doom ci sëriñ Xaadim Bousso di ab taawam bëggoon a am lu ma leeral lu jëm ci ay tuma yoo xam ne jógewul fenn furu ci ay nit ñoo xam ne rek dañoo bëgg a defar seeni mbir walla ñu bëgg a defar seen i candidat ba tax ñu teg ko ci sama kaw tuuma yi mi ngi doon ne dama dem jàppale ji Idriss Seck tiis bi gën a metti ci ñun dal ci suñu kaw moom moo ñu ko teg wala boog sabab ba ci moom la jógee ku xam Sëriñ Xaadim xam ci ak jullitam xam ci ak jaamu yàllaam musta tardé wu benn waxtu ci àdduna ba suur bi ñu ñëw di ko boom ci kër gi dañ ko fekk muy bëgg a julli xam ne ñoom ci jàkk ji lañ ko fekk man day nguur xam naa ne yàlla rek moo ko joxe te du ma ne nag du falu ndax loolu suñu borom moo ko def waaye du ma jàpp ci falam te duma ko jàppale tey duma ko jàppale ëllëg bi loolu amee dama ne woon sax du ma ci wax waaye mbir day toll foo xam ne day laaj tuuti nga leeral ndax mbir moo xam ne danga ko bokk ay nit ca fi mu toll ci yow tollu ci ñëpp bi mu amee natt boobu dal ci kawam àdduna sépp ko naxarlu du murid kese képp kuy ab jullit naxarlu nga lu mel noonu ñu bokk ko ak ñoom ñu taxawuñ ci bu baax a baax a baax kon mbir moom képp ku ci dox wala nga ciy wax rawatina ci biir uh, njabootam war nga xam ne du sa mbirum bopp yow kese li ma tax sax ma def lii defuma ko pour kenn wala di défendre kenn wala di may kenn ay côté non non defuma koo def en tant que dañ ma def ay tuuma yoo xam ne dañ ma ko tuuma ma bëgg koo dindi ba ñëpp xam ne loolu du ñaar bi ma leeral loo xam ne musta leer kenn ndax wax ji na ñu ciy wax waaye comme man mii nga xam ne man maa di taawam musuma cee wax te dama ne moom ci wax waaye tuuma yooyu moo tax ma bëgg cee wax kon ku mel noonu mënu maa ànd ak moom te jàpp naa ne tamit képp koo xam ne am murit nga wala nga njabootoo fii ci dëkk bi ak si li fi si nga xaarim def ak yéene yi fi amoon lépp ci gàllankoor ba am ay jafe-jafe wala taxaw am ci ci wàllu liggéeyam Idrissa Seck loxoom a nga ca dafa jot sëkk nag ñu leeral ci tuuti muy loolu te dinañ ci gën a leeral yeneen yoo xam ne yu leer naññ la waaye jamono yi moo tax te bëgguma dugg ci ay politique parce que loolu taxumaa jug li ma tax a jug mooy weddi bi ñaare bi itam wax ne itam jafe-jafe yi nga xam ne Idrissa Seck teg nañu ko te duñu ko fàtte ba ilaa yow mi diine te jàpp nañu lu mu yàgg yàgg yàgg dina ko fekk te bu ko fekkee dina ko layoo musta taxaw ci famille bi eh, ma sawu leen wala mu regretté ko wala dara damaa jàpp ne sax nag da koy bàkkoo